Rebus TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen ko. bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi ñuy topp ci suñuy waxtaan ci koor ñoo ngi leen di. nuyu nuyu lislaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullah seen mbokk Babu Cissé moo dellu si ak yéen ngir fàttalante lu aju suñu wàllu diine bunt bu ñu indi nag ñu ngi aju ci wàllu xëdd ñu defoon ci tuuti ay gëstu jàpp ñu leeral ko lu am solo la ndax nit ñi dañ koy aajoo ci wàllu weeru koor xëdd ñu ñëpp xam nañu ko mooy lekk bi ñuy lekk ak naan ci waxtu bi nga xamante ne moo mujj ci dernière heure guddi gi avant fajaru ñaareel loolu mooy xëdd xëdd nag moom atteem ci lislaam mooy sunna la lu ñu sopp la lu koy tegtale mooy sax na ci xadis boo xamante ne anas ibnu malik moom moo ko nettali mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tasaxaru fa inna fi saxuuri barakatan nee na yonent yàlla bi nee na dee leen xëdd ndax nekk na ci lii di xëdd barke beneen tegtal bi buy wane ne xëdd lu ñu sopp la mooy xadiis anas radiyallahu anhu anna zayda ibnu thabit radiallahu anhu xaddathahu annahum tasaxaruu maa annabi sallallahu alayhi wa sallam summa qaamu ila salaa anas nee na zayd moo ko nettali nee na ko ñoom bés xëdd nañu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam après ñu dem ca jàkka ja julli ji ñu ne kon ñaari xadis yi bii wax la bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax digle ko xëdd beneen bi mooy daf ko daldi jëfe beneen taxawaay bi ci xëdd muy beneen point bi mooy xëdd am na ay ngëneel muy ngëneel yi nekk ci xëdd ak jubluwaay yi nekk ci yonent bi soññee ñu ngir ñu koy def ngëneel yi xadis biñ jàng sànk junj na ko buñ xadisu anas bi mu ne yonent bi nee na dee xëdd ndax xëdd am na barke kon yonent bi lu mu ne am na barke loolu jullit daf koy barkeelu ñu ne barke bi nekk ci xëdd mooy benn soo ko jëfee roy nga sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wa ndax moo la ko digal ñaareel bi mooy wuute nga ak ñi nga xamante ne ñooy ahlul kitaab ndax ñoom duñu xëdd ñetteel bi mooy xëdd boobee dina la dimbali ci bëccëg bi dina la dimbali ci bëccëg bi dina la may tuuti kàttan kon loolu lenn la ci yi nga xamante ne xëdd am na ko ci ay ngëneel ak jubluwaay beneen bi mooy xëdd période bi ci gën mooy waxtu bu mujj ci guddi gi avant fajaru ñaarel yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jàngal bi ñuy tuddee taxiiru suhur moy yéex a xëdd mooy li nga xamantene moy li gën nit ki yeexé xëdd kon yeexé xëdd nek na li nga xamantene mom sunna la anas radiyallahu anhu sank wax nañ hadith bi nee na Zayd ibn Xaaris ah, ibn Saabit nettali na ko nekk ñoom xëdd nañu ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu noppee ñu daldi jëm ca julli ba ngir julli Anas nee na ma laaj ko ne ko diggante boobu ñaata la ci temps mu ne qadru xamsiina aaya diggante bi nit ki mën na fa jàng cinquante aaya cinquante aaya ñu ne xadis bi dalil la tegtal la ci di wone sopp bi ñu sopp nit ki yéexee xëddam avant fajaru ñaareel bi kon loolu itam ñu daldi ci bàyyi xel beneen bi mooy bokk na ci li ñu gën a sopp ci xëdd wala yi ñu sopp ci xëdd mooy nit ki xëddee li nga xamante ne mooy tàndarma wala buy xëdd itam na ci boole li nga xamante ne mooy tàndarma kon lii lenn la ci lu ñu indi woon pour ko suñu bopp fàttali ko mbokk yi ci lu aju ci wàllu xëdd si ñaax suñu bopp di ci naax jullit ñi yëpp ndax jëfee ko sunna la yàlla daf la ciy fay yool te itam am na barke beneen bi itam mooy jullit bi yar boppam ci di ko def bañ bokk ci ñi nga xamante ne dañuy wax naan man mënumaa xëdd dëgg la lekk heure boobu neexul waaye na ko jéem ngir royee ko sa yonant muhammad sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne yàlla moo wax ci alquran wa ma aataakumur rasul fa xuduuhu lépp lu leen yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa indil jël leen ndax moom lépp lum ñu jàngal loolu yiw la loolu barke la loolu njariñ la ci ñun yàlla nañu yàlla nangul suñuy koor yàlla nañu yàlla jéggal suñuy bàkkaar yàlla nañu yàlla nangul suñuy ñaan yàlla na yàlla def koor gi mu jur ci ñun imaan jur ci ñun taqwa jur ci ñun mbaax boo xamante ne lay sax ak ñun dàq yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Reubeuss TV mooy suñu télé la chaîne de la vérité tasaare leen ko